ñu nemeeku lakk-lakk gu metti te yàgg lool tey jile di ci diwaan bu Touba ci garage su mécanicien yi nekkee ci biir marché bu Daaru Marnaan lakk-lakk gi yàgg na lool waaye sapeur pompier mujjee na ko maîtriser donte sax yàgg na daal dina fi def ay dégâts yu bëri lu ci mel ni ay oto yu ñu doon réparé ci biir garage bi ak ay cantine yu doon jaay ay pièces détachées yépp daal dina doon dóom ñi fi liggéeyee nag yommi ba jéggi dayoo la ñu def ba tax ñu sàkk ci autorités yi ñu daal leen taxaw ndax it jamono ji moom lépp lu ñu yaakaaroon daal dina sawara si daal dina koy yóbbu sàkku ci autorité ñu daal di leen taxaw bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ñi nga xamante ne ñoom fi liggéeyee. dëgg-dëgg metti na mais li nga ma laaj mënaguma la cee tontu léegi sabab bi moom xamaguñ ko exact li am ba am mooy xaalis bu baree baree bari yàqu na fi ndax ay ndaw ñoo fi nekkoon ñoo xam ne ci biir garage bi la ñu nekkoon di taaba taaba dañuy wax taaba taaba di jënd di jaayaat di dimbale seen njaboot di dimbale seen ay waajur yàlla dogal na nag nattu bi dal leen. ñun ñu ngi leen ma masawu bu baax a baax suñu njaboot lañ ñun suñu njaboot ñoo yàqule yàqule nañ xaalis bu baree baree bari xamaguñ nag exactement lu ko sabab ak lan la affaire bi daal ay 11h la commencé que ba heure yi waaw ay 11h la commencé lakk ba heure yi wax dëgg yàlla métti waaw ñoom tamit ñu ngi leen di sant leen jaajëfal ndax ñëw nañ def nañ lañ war a def. ñëw nañ def nañ la war a def xëy na sawara si moo am doole am doole goo xam ne fay ko yombul woon waaye wax dëgg yàlla ñoom liñ ci def loolu rek lañ mën a def dimbale nañu bu baax a baax a baax. waaw loolu mu oh, amaana amaana loolu am na ndax fii ay garagistes ñoo fi nekk ak ay jaaykatu pièces amaana def léeg sax dugg fi day day métti lool dafay xat xat loolu lay def waaye dafa fekkente ne mbir mi moom niñ ko gisee noonu lañ ko gisee rek ndax yàgg nañ fi lool. dara mosu fi xew. non man mënu ma koo xayma ci koppar wax dëgg yàlla. bëri na trop bëri na trop parce na ñoo ngi ci dañuy sant Serigne Touba rek. ay moteur a ngi fi lépp a ngi fi. dañuy sant Serigne Touba rek ndax ay ndaw kese lañ munuñ dara yàlla rek a man fii képp koo fi gis muy dem rek dañ koo jàppale. mais dégâts pour yéex loolu dëgg la mais tamit munoo nekk ci diggante boo xam ne jéggitali la rek diggante boobu war ngaa mën a gis saxaar si yow même bu ñu la woo téléphone sax war ngaa xam li xew nga jug xool xam li xew boo ko defee incha allah yàlla dina la dimbale ci li ngay liggéey ñu ngi e di sant baax di leen gërëm ŋàññul leen ci benn côté mais dañoo bëgg rek ñuy gën a góorgóorlu ci yu mel nii ndax lakkale alal waaye man foogu moon sax dana ak suñ place yàlla xam na ko non man damaa génn rek tasanteeg fii ñu naan ma sappoor mi ngi ñëw boobu maa ngi dimbale sama benn waay bu ne fii bu ñu naan di ko génneel ay téléphone am mais man bi jàpp ma leen ko dëgg boo bëggee dëgg-dëgg garage bi moo amul organisation dañu dëgg rek ndax porte bi yow sa tànk sax boo fi ñëw di di fi ñëw sax da ngay sonn asuma laa ngay oto kon loolu dañ cee war a bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax waaw ñun ñooy organise bopp nit koo gis buñ la organisé te nangoo organisé doo dem ñun ñooy organise suñu bopp naan pièce laay sama place a ngi ne moo lakk ba xam samay bagage dara génnul li may li ma yàqule mënu maa xayma lim toll parce que sama saak mi woon si biir mais lépp xaalis amoon na xaalis yu toll si ay 500 xanaa maa ngi ko bàyyi si biir bi ma ñëwee gis muy lakk mënu ma kaa jege parce que dafa tàng ma ne boobu kenn ubbi moo nekk ne ba léegi kenn ubbiwu ko bi muy lakk fekk mu fi mais bi ma ñëwee damaa sant yàlla xam ne lii la yàlla dogal man li may ñaan mooy yoon wi yoon wi laay ñaan lii ñoo ko mën a liggéey mënuñoo liggéey. ñoo mën a liggéey ba am lii nii mais mënuñoo lii mënuñoo liggéey ñun yoon yi na yaatu yoon yi na yaatu ñun bay ñoo fay dara lu ñu fayloo mën nañ koo fay ci kàttanu yàlla yoon yi nañ ko yaatal pour sapeur sax bu ñëwee mën a am fu jaar mais sapeur ñëwee mënul dugg fee la jam ñun oto yi ñuy dugal oto mu dugg ci biir loolu lépp paay la loolu lépp coobaree paay la. mais li fi lakk sapeur yi ñëw nañ heure ba nu war a ñëwee. mais bi ñu ñëwee mënu ñëw dugg ndax fii dafa xat yoon yi dafa xat sapeur bi ñu ñëwee ci bunt ba la yem gars yi ñoo doon tàng ndox mi di ñëw di xëpp xam na loolu tamit day yéex bu fekkoon oto bi daa ñëw taxaw mën naa fay sax tuuti sax au moins mais bunt ba fii yëpp lakk ngir lan oto yi amul fenn fu ñu jaar mënatu ñëw dugal oto dañuy xëy suba ba ngool mënu ñëw dugal oto paa yi nekk fii di lotisé di natt seen nat natt loolu bu ñun daal ñu ngi leen di ñaan paa bu fekkee mën na ñoo dégg sëñ bi nañ yaatal yoon wi oto yi am fu ñu mën a jaar nit ñi mën a liggéey seen liggéey ndax fii ñi fiy tedd dafa bari. dégg léegi ñu naan gaaras bi dafa amatu yoon garas bi amoon na yoon woo xamante ni oto da daan dugg ci biir ab camion tourné rond ba ñëwaat ci bunt beneen bi waaye jamono yi nga xamante ni bii nii dañoo wax ni dañuy lotti sa garas bi ci lan fat yoon yoon yi nga xam ne noo nekkoon yoon central yëpp dagg ko ay place toxal toxalaloon nit ñi ñu toxal seen casque diggante bi nag ñiy defaraat seen place ci la maas bi am ba lii am natt boobu euh, daanaka amuñu ci wan benn décision boo xamante ni bi ni jëlagun nañ ko ci woon ñoom ndax ñoom di ñuy ñëwee ci première bi nga xamante ni moom lañ njëkk a wax ak ñun dañoo njëkk ni ñëw ni place yi nga xamante ni bi ni dañoo ne ci biir garage bi dañ koo bëgg a natt kenn ku ci ne ñu joxe la place ngay joxe junni ñu dem ba beneen jamono ñii ñëwaat ni place yi ñu doon natt dañ koo bëgg a natt kenn ku ne di joxe ñaari junni ñu yi nga xamante ni ñoo ko doon natt ci gaar bi sëriñ bi nee na dañ ciy joxe juróomi junni ay ndaw nag ñoo xamante dañoo dajaloo di jaay ay koosu ak ay weñ di taqale ngir dépasse boo yóbbul sa waajur wu góor wala sa waajur wu jigéen ak loo mën a joxe addiya am na yoo xamante ni suñ la ko tegee donta mënoo koo jooy ñëpp dégg ko sax du tee dina métti kon ñun te ñun amuñu lenn loo xamante ni bi ni war nañ koo mën a jooy sëriñ bi ndax fu ñu teg sëriñ bi fu ñu teg moo tax bi nga xamante ni bi ni waa gaaras ba génn nañ ñun ñu jooyal ko suñuy kàddu mu am ci ñun yërmande moo tax mu ñëw jël ñu jox ñu fi ne liggéey leen ngir dimbali seen jaboot fii moom li fi yàq bu ñu ko doon xayma kenn du xam nu mu toll parce que bëri na ñoo xam ne seen place la fa nekk ci valeur ëpp na 10 millions da gis benn place boo xam ne la fa nekk ëpp na 10 millions am na ñoo xam ne casque yu ndaw ndawaan yii ngay gis di ko xeeb lu mu gàtt gàtt boo fa duggoon dafa génne benn 1 million ci bagage kon loolu bëri na nekkul xaalis bu ndaw xaalis bu bëri la xaalis bu bëri moo fi yàqu. nekkul lu ndaw loo xam ne moo fi yàqu xaalis bëri moo fi yàqu. ndax garage bii yàgg nañ ñu fee malmené ngir jëlee ñu fi bañ demee ba yegg ci moom baat yi moo ko wax ci gémmiñam sama nopp ab ma ko luyewu ko jaayu ko terewu ma ko kon ñun ñii fi nekk dem nañ ba mën a ami kër mën a jëndi oto mën a mën a mën a mën a luye ay place ci ak jàppandalam ci ndimbalal ci ndimbalam lañ ko mën a amee kon duñ man lu sant ko ak jaajëfal ko waa lakk bi fi am tamit ni ni ko sama mbokk yi waxee noonu képp la demee benn mbokk taalibe bu nekk ci biir garage bi lañ wax ne moo fi doon suude te fii nag wax dëgg yàlla suude fi des naa xaw a jub. mais place menuisier métal dafay am. non menuisier métal ay pièces détachées moo fi nekk mais dafa am koo xam ne si ne dafa ak ferrailleur dafa am koo xam ne dafa doon suude benn parce que moom tamit jaaykatu pièces détachées carrosserie la mu am porte bu mu doon bëgg dindi. affaire bi def falaam tàkk ci biir loolu jéem nañoo woo sapeur sapeur egsi na ci ci ci jamono bi mu war a mën a egsee ndax dëkk bi tamit jug ak egsi def nañ tamit luñ mën waaye nag matériel bi nga xam ne si ni moo war a liggéey liggéey bu mucc ayib indaale wuñ ko loolu nag kenn du ci joxoñ sapeur liñ man ñoom def nañ ko seen kem kattan li leen di dimbali di leen complété mooy matériel bi ñu war a mën a liggéeyee moo des. jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu euh, di wax en tant que conseil municipal bu commune Touba di masawu d'abord ñi nga xam ni ñoom la tiis wu métti wi dal ci seen kaw di leen ñaanal yàlla na suñ borom may xolub muñ te mayaat leen lu ñu dundale seen njaboot. ndax ku ñëw fii xam ni ñi fi nekk daan seen doole rek lañ fi xëy def si ku gis matériel yi fi yàqu itam nga xam ni ñii ci nekk xeebuñu dara seenu ñaq rek la ñuy dunde mu nekk itam dégâts bu méttee métti ndax li fi yàqu wax dëgg yàlla mënuñu ko xayma ne nangam la waaye xam nañ ni ay millions yu bari yàqu na fi te boo ko xoolee lu ci ëpp ay ndaw ñoo dajale seen i téeméer seen i ñaar téeméer xam ni lii mooy seen métier ñu di ko toog fii di ci yaxantu kon lu mel ni bu xëyee dal ci seen kaw en tant que ñun ñu nga xam ne ay représentant municipal lañ yu nekk fii ndax bi mbir mi xewee ci laa woo maire fekk dafa génn nekku fi ci la ma ni koo war a woo nanga ko woo ci la ñu woo sappoor ñu ñëw malgré gis ngeen situation yi ni mu demee ku miin samay kàddu nag yàgg naa ko wax ni lu mel nii nañ koy invité parce que sapeur pompier benn caserne sapeur pompier benn sapeur pompier fii ci Touba ku ne xam na ni lu mel nii bu dee am leneen sax mën naa am lu gën a pire lii ndax bi ñu dikkee gis ngeen oto bi ñu indi bi ndox mi jeexee dañoo dem di duyuwaat loolu tàkk-tàkk mënu ko xaar dama mujj obligé bi ma yegsee xam naa situation bi ni mu demee ci laa woo Abdou Fata bu Touba ci kanam ni leen nañ def le tout pour ñu fexe ba lu ñu am ci oto nañ ko fexe mobiliser gaaw mu ñëw ci lañ mobiliser seen oto yëpp ñoom itam ñëw ñu sant leen gërëm leen ci kanam ci turu sëriñ Abib moom sëriñ Fallou ñu leen di sant leen gërëm ndax waxtu bu population bi soxlaa bàyyi nañ li ñu doon def lépp ñëw taxawu population bi jàppale leen jafe-jafe yi parce que oto yooyu amul ay pompe dañuy dikk rek ubbi raakol yi nit ñi jël ay siwo ak i paan di sotti loolu xam nga ni wax dëgg yàlla dañ ko def ci njàmbaarte sax waaye même ñi ko doon def volontairement lu ne mën na leen cee fekk parce que heure bii muy lakk ngelaw li léeg-léeg nga dégg ay pneu yu éclaté ci biir léeg nga dégg ay ay batterie yu ci biir ñoom ñu ànd ak pas bu mat dem di ko fayal seen bopp loolu wax dëgg yàlla ana état bu senegal ana état bu senegal ci deuxième capitale yàgg nañ ko jooytu lii moom duñ ni guléet duñ ni bett na leen wax dëgg yàlla ndax am na fi amati na fi te waxtu wu nekk ñu jooytu ko te benn solution mu si cee am nag kon nag ñu ngi lancer un appel fort parce que état rek moo mën a génne nit ñi ci situation bu mel nii gis nga mbiri tàkk-tàkk du ay caaxaan. Touba war nañoo dépasser benn caserne sapeur pompier lu gàtt gàtt waroon nañu am lu mat 4 wala 5 antenne de sapeur pompier fii ci biir dëkk bi yoo xam ne bu lu mel nii amee juróomi oto fu ñu ko séqee wax dëgg yàlla li fiy lakk bu dee bari itam du doon lool. waaye nag waxtu wu nekk muy am ñu koy seetaan waxtu wu nekk muy am ñuy dikk di masaw loolu wax dëgg yàlla dafa war a jeex parce que nag ay rangooñ mënut a dëkk ci di toq ay rangooñ dafa war a fer te it ci population Sénégal lañ bokk. ci Sénégal lañ bokk ay citoyen lañ buñ ko deful ngir population bi nañ ko def ngir jëmmi sëñ Tuubaa buñ ko deful ngir jëmmi sëñ Tuubaa itam nañ ko def ngir population bi xam ne dañoo doon ay citoyen di liggéey daan seen doole waaye waxtu wu nekk ñuy liggéey ay at bu ñu liggéey ay at ñu toog di leen seetaan ba mu yàqu ci ay minit wax dëgg yàlla loolu metti na lool man nag nekkuma fi pour benn xam ngeen pour kan laa fi nekkal pour population bi seen i jafe-jafe ak seen i naqar wax nag képp ku ma ci mere wala mu déranger la itam jàppale ne man li population bi bëgg ci loolu laay wax li population bëgg ci loolu ay dox. bi lee lakk-lakk nag daal dina def dégâts yu bëri daanaka yóbbu na oto yi xamante ni ñoo fi doon gaare ngir ñu leen leen defar ak ay ñi doon jaay pièces détachées lépp la sawara si daal di yóbbu bu ñu sukkandikoo si ñi fi pe ñi ñu fi fekk ba ñu daal di sàkku ci autorité ñu daal leen taxaw ndax jamono ji kat bu ñu xëyee amatul lu ñu def lépp lu ñu yaakaaroon sawara si daal dina ko yóbbu ni ki tey ci dimanche ji yemoo fanweeri fan ak benn ci weeru décembre ati 2023 ci ci diwaan bu Touba Touba Mamadou Ba Serigne Saliou Dieng Info 7 TV